Bismillah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 du ko ñaanal moom it mu yàgg fii li mu fas yéene liggéeyal maam ju baax ji Seexul Xadim Sëriñ Tuubaa yàlla defal ko moom it mu amee ni mu ko bëggee naka noonu itam li ñu koy ñaanale eh, xalifa Seex Suhaybu Mbàkke di Sëriñ Seex Ahmadu Mbàkke Suhaybu du ko ñaanal moom mu yàgg fii te wér lool li mu fas yéene liggéey Sëriñ yàlla suñ borom def ko moom it mu amee ni mu ko bëggee noonu liñ koy liñ koy ñaanale itam mboolem njabootu Sëriñ Suhaybu bu yëpp kon tey mbokk yi ñëw ci seen naafileeg bis bi naafileeg bis bi tey guddi ñetteel ga sëriñ Sooyu Mbàkke radiyallaahu anhu nee na ku ci julli juróom-benni rakka maanaam juróom-benni rakka rakka bu ci ne faatiya ak inna ansalnaahu ak xul yaa ayyuhal kaafiroona lu ci ne ñeenti yoon maanaam rakka bu ne maanaam juróom-benni lay nekk rakka bu ci ne nga jàng fatiha gannaaw fatiha nga jàng inna ansalnaahu ak xul yaa ayyuhal kaafiruuna lu ci ne nga jàng ko ñeenti yoon mu ne boo ko defee dana mel ni ku goreel junni jaam ak jox ak jox dog junni ñu woor wodd itam junni ñu rafle leel junni ñu xiif des nañu ko bindal itam tuyaabay ñu toll ni limu janaaw yu nekk ci àdduna bi yépp des na ko defal li ñuy defal jaamu yàlla yi gën a baax ak ñi dee ci njàqare dees na ko deesu ko fitnaal ci bàmmeel deesu ko mbugal itam maanaam guddi ñetteel ga ku julli juróom-benni rakka rakka bu ci ne mu jàng ca faatiya ak inna ansalnaahu ak xulyaayul kaafiroona lu ci ne ñeent yoon la koy jàng mu ne dana mel ni ku goreel junni ñu junni jàmm ak jox dog junni ñu woor wodd itam junni ñi rafle leel junni ñu xiif des nañu ko bindal itam tuyaaba yu toll ni limub janaaw yi nekk ci àdduna bi yëpp deesu ko defa dees dees nañu ko defal li ñuy defal jaamu yàlla bi gën a baax ak ñi dee ci njàqare te deesu ko fitnaal ci bàmmeel deesu ko mbugal itam kon mbokk naafileeg bis baa ngi noonu te mooy euh, guddi ñetteel ga juróom-benni rakkaa lay doon bu ci ne fatiya ak inna ansalnaahu ak xul yaal lu ci ne mu jàng ko ñetti yoon kon naafileeg bis baa ngi noonu di ñaanal sëriñ son bi Mbàkke yokk ay leeram ci taas ci barkeem di jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam barke sëñ Tuubaa kon ñu jox leen di sëñ ëllëg ak jàmm allah taala jërë ngeen jëf